maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mboole mbokk yi ñoom leen di nuyu bu baax ba tey ay mbir yu ndaw yoo xam ne nit ki da ci ami tuyaabaam ju baree baree bari te du sonn yooyu nit ki da ko war di gëstu di ko xam ndax nga di ko mën a def ndax alaxira xaalis ba mooy tuyaaba ku xas génn àdduna rek pare nga ci CFA pare nga ci euro pare nga ci dollar léegi xaalis bay compte ci réew ma nga jëm mooy tuyaaba kon xaalisu àlaxira mooy tuyaaba kon nag lépp luy indi tuyaaba nit ki daa war a farlu ci di ko def ba tuyaaba jooju mu am ci milliard ya nga xam ne moom la soxla comme que nag sa dund àlaxira dafa nar a gudd du doon dund goo xam ne téeméeri at la wala ñaar téeméeri at du doon dund goo xam ne ñaar téeméeri milliards la wala ñeenti téeméeri milliards dund la goo xam ne amul àpp dafay continuer ba fàww te boo fa xasee ba àgg amatoo liggéey foofu moom dunde la nga indi la moo xam lu baax la moo xam lu bon la kon nag nit ki fii lay jéem a góorgóorloo ba def fi ay fàgguteef yu rëy yoo xam ne bu ëllëgee bu àggee buñ ko ubbilee kontam xolam sedd gu yi mu xam ne moom kat ay milliards ay milliards yu baree ngi doon dugg ci kontam waaye akan yax nit ki ñu ubbil ko kontam bi mu jëfal boppam moom xam na ne doon na nàngam doon na julli doon na doon na tuyaaba doon na wax subhanallah doon na teel a dem ca sàppe su njëkk sa doon na def nang doon na woor ba alhamdulilah mu kontaan ñu ne ko waaw kaay nag ay compte yu baree ngi yoo xam ne yu yógoo ko woon sax ci sab liggéey la jóge encore mu ubbi gis ne benn ca compte yooye rek moo ëpp comptam ñaari yoon waxantuma laa nag boo boolee compte yi yëpp nu mu toll mu ne lii fu ma ko jëlee ñu ne ko ah diyaa tegtale woon lu baax mu ne waaw ñu ne waaw ci loola la juddoo ba nga ko waxee diw da koo def diw moomee lam def tuyaabaam yépp dañ lay bindal lu ni toll mi ngi nii te loolu yeneen tibee ko wax nee na képp koo xam ne tegtale na lu baax day am lu toll ni tuyaabaam mu ne ana diw moomu ñu ne ko ay yow de xamoo ko woon sax jërul sax nga koy xam yow daal sa tuyaabaa ngi nii jógal jëlal te dem sa yoon defe naa keroog ko am lu mel noonu sa mbégte dana rëy nga yëg ne kon ndekete woote la nga jëlee woon ca jëf yi nit ñee ci ay tuyaaba mu ëpp sa xew sa tuyaaba yi bopp fopp ndax léeg-léeg nga tegtal lu baax nit koo xam ne moom nam cay nooyee ak nam koy defare yow mënoo ko yow mënoo ko seen soxna soo xam ne am na ko ko mas a tegtal julli guddi julli guddi ba tey lañ xam ca moom ca soxna soosa mooy ma ngay julli guddi te man caa yàgg lool sax tey ka ko tegtaloon moom léeg-léeg boo demee xaj na macha allah ay nelawam ëpp ko doole waaye moom ba tey soxna sa ma ngay ma ngay julli guddi ca lañ xam xam nga ne kooka kon ki tegtal moo gën a sàggan kam tegtal kam tegtal moom ba mu xasee jot ciw yiw nam cay ngoyee day rëy am na koo xam ne mas naa tegtal kenn ne ko yow xanaa doo woor sawmu daawud mu ne ko ah man bu ma wooree sawmu daawud tàngoor yooyu mu ne ko defal nangam ak nangam waa ji génn foofu ba liñ mujj xam ci mbiram ba tey ma ngi koy def mooy sawmu daawud googu mooy woor bis dog bis boo demee kooka de yëgul ne kii mu waxoon kam waxoon ne ko deel woor bis di dog bis ma ngi koy def ba tey yëgu ko sax fekk woote ma ngi koy def moom mag ko waxoon boo demee di fatu ko wala boog faatu na wala nangam waaye tuyaaba ma ngi continuer parce que yàlla moom xoolul ba xam yow xam nga li nga li nga def lim juróom lim jurul moom tey li muy xool mooy ndax bi nga koy def sellal nga wala sellaloo loolu rek lay xool bu xasee sell ba mu koy nangu lum jur lum rëy rëy rëy rëy da nga koy am kon nag nit ki dafa war di xalaat bunt yooyu yan bunt la di ko gëstu ndax nga mën a raw parce que boo sukkandikoo sa jëf fi bopp ke- kese rek boo boo àggee bu ñu la xisaabee ba ak kii da nga kontaan de waaye bu ñu xisaabalee gaa yi doon sukkandiku ci bunt yi nag dañ lay raw fopp dañ lay raw fopp boobaa yow doo doo bokk doo doon seen classe sax parce que ñoom lañuy la ñuy amee feneen rek moo ci kenn nit wala ñaari nit rek yow day jël sa sa jëf yépp teg ca nag ñoom seen jëfi bopp door ñëw kon nit ki day jéem a wut ay place ubbi place tey li tax ma ñëw foofu mooy internet bi léegi dafa yombal loolu mooy fexe jàllaliw yiw ci keneen yombal na ko lool ku ci ne ci ñun am nga ay mbokk yenn yi yu la jege yenn yi yu la xaw a jege yoo xam ne yëg nga ne bari na yiw woo xam ne yaa ngi koy xam moo xam fii nga koy xamee ci sàkku xam-xam gi wala ci beneen béréb wala da nga ko liir cib téere wala feneen ak feneen te ñooñu yëguñ ko mu leer ne la am na ca ñoom ñoo xam ne de buñ ko yëgoon danañ ci góorgóorlu koo xam ne ñàkk yi nga tax jëfuñu ko masalan yii ñuy wax ci tudd yàlla yi subhanallah alhamdulilah la ilaha illallah allahu akbar nga gis ay mbokk yu bo- yoo xam ne ña ngay bàyyi seen temps muy jàll ci yu yu amul benn njariñ nga xam ne ay seetaan matsa ki seetaan filmo ki seetaan yi théâtre ñoo ngi jégalu ci kàddu googu ngeen di dégg liggéeykat yi dañuy tëli fi ab tëli moo tax looloo tax ñàkk a xam lu mu ca war a def moo ko yóbbee nga gis jigéen nga nekk ca waañam masalan di togg di tilli tilli sonn lool ca togg ga waaye du ca boole mukk digluwaale alquraanam wala digluwaale xam-xamam wala digluwaale lu koy jariñ wala muy waxaale subhanallah alhamdulilah te fekk bu ko ci doon boole day ni ceebam boobee di nar a neexe noonu la tuyaabaam it nar a nar a am solo nga gis ka nga xam ne ab safoor la day xëy dawal mën naa jóge foo xam ne jëm foo xam ne ñeenti téeméeri kilomètre wala lu ko ëpp bis bi yëpp mu yenn koo dawal waaye benn subhanallah du ko waxaale wala mu tegaale kasetu alquran wala dara ñenn ñi sax ay kasetu musique la ñuy teg tege te- tegaale te fekk bu ko ci boolewoon nam ci mën a amee ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll kenn kenn kenn kenn kenn loolu lépp la ko waral mooy nit ki xamul wala bu xamul fàtte na bu xamee fàtte na léegi yow nga fexe ba doon ki koy fàttali wala ki koy xamal yaay fexe ba doon ki nga xam ne yaa koy jottali xam-xam ba mu jóge ci ñàkk jëf jëm ci jëf jóge ci ñàkk xam jëm ci xam bis bu ci jógee doomu aadama yépp a bëgg lu baax képp koo tegtal lu baax mu xam ne lii di lu baax la lu koy arrangé la te yàlla nar ci moom aw yiw day daal di tàmbalee jóg di jëf bu ko defee lépp lu mu jëf ci lu baax te fekk yaay sabab ba yàlla daf la koy bindal yow ba mat sëkk sëkk sëkk kon daa mel ne sa bopp ngay liggéey liggéeyaloo ko waaye it yaa ngi koy liggéeyal parce que yaa ngi koy dimbali moom ci boppam di ko teg ci lu koy jariñ liggéey bi ñaari kaala boo xam ne boo ci xool la day mel ne bii boo ko xoolee yëgal ne sa bopp ngay liggéeyal parce que say place ngay ubbi yaay xool nooy def ba say tuyaa ba gën a yokk bële it boo ko xoolee mooy yaa ngi dimbali doomu aadama yi ci lu leen di jariñ parce que moom mi nga xam ne mi ngi doon xëy di ñàkk ay fukki àjjana fukki kër yi àjjana wala lu ko ëpp ah ngir ñàkk xam wala ngir fàtte nga xëy fekk wax ko loo xam ne tax na mu jóg di jëf joojee jëf loolu lépp kooku am koy dimbali ku baax nga ci moom li nga ko defal moo gën sax defal ko a- àdduna ak li ci biir moo gën nga joxoon ko àdduna ak li ci biir kon kur ci ne xam na ci say mbokk ñoo xam ne mën nga leen a jàppale noo leen di jàppale ubbil ab groupe ci whatsapp bii nga daal di tey dugal ña nga xam ñëpp say mbokk boo ci mënee laafaale ñeneen sax baax na ci say xarit ak ñeneen te njëkk leen koo yëgal ne leen ah man kat damaa bëgg a ubbi groupe boo xam ne lii ak lii lii laa ciy def moo gën nga jékki-jékki rek jël leen di leen dugal ci groupe bi bu ko defee ñuy génnaat wala ñu naan kii def ñoo yàpp wala dara déedéet waxtaanal ak moom kenn par kenn ku ne nga yónnee ko message ne ko ah man kat lii laa nar loo ci xam bu ne laa dugal ma nga dugal bu ne laa déedéet nga nga bañ a def bu ko defee boo ko defee ba pare lépp yiw woo xam ne tas nañ ko fii ci sàkku xam-xam gi nga daal koy daal di jël tas foofu bul cee yem sax ndax yow jaam bi yaa ngi wakkiirlu ci yàlla ndax say mbir yépp yaa ngi koy bàyyee borom bi tabaraka wa taala ndax yàlla doy na la ndax wóolu nga yàlla ni moom moo lay aar ndax wóolu nga ni amul kenn ku la mën a lor lor jeet agsi ci yow lu dul ne bu ci yàlla àndee ndax wóolu nga ne amul kenn ku la mën a xëccal njariñ ku dul borom bi tabaraka wa taala ndax wóolu nga ne yàlla rek moom mooy ki la mën a jariñ moom rek mooy ki la mën a lor ndax wóolu nga ne yàlla rek moo la mën a sàmm amul kenn ku la mën a sàmm ku dul borom bi tabaraka wa taala lii jullit boo ko laajtee tontu bi leen rek la mooy waaw loolu wóolu naa ko yàlla rek kay sàmm yàlla rek kay aar ci moom rek lay dellu jamono njàqare ci moom rek lay dellu amul kenn koo xam ne mën naa dindi njàqare ku dul borom bi tabaraka wa taala pas-pas boobu mooy tax jullit bi du aajawoo dellu ci ab njabarkat ñu koy defloo ay bokkaale yàlla yoo xam ne da koy génnee ci lislaam ñu koy tuurloo ay dereet yoo xam ne jinne la koy tuural wala ñu koy takkaloo ay gàllaaj yoo xam ne ay wàllu ci turi jinneeg yooyoo ca nekk mbokk mi bu dee ne sa pas-pas ci yàlla dafa dëgër da ngay gëm ni aar yàlla rek la ko mën a def te yàlla nam lay aare moom wax na la ko ngay jàng ñaan yi nga xam ne boo ko dee jàng dalay aar comme lu mel na ngay tari qul huwa allahu ahad ñetti yoon qul a'udhu bi rabbil falaq ñetti yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñetti yoon heure boo xëyee ak boo ngo boo bu ngoonee ak booy bëgg a tëdd yooyu dalay aar ci lépp ak yeneen ñaan yi la yeneen ci saa sam jàngal nga ci góorgóorlu di ko def am na nag mbokk mu nekk ca wet ga moo xam ne pas-pasam ci yàlla dafa niiw doole foog na ni am na yeneen yu koy aar yu dul borom bi tabaraka wa taala am na ay mbir yoo xam ne jàpp na ne bu ko takkee yooyaa koy aar ci lore yooyaa tax ba bët du ko jàpp wala boog cat du ko jàpp yooyaay tax du accident yooyaay tax doomam du feebar wala bu feebaree du ca faatu yooye moom lay tudde gàllaaj gàllaaj googa financé xaalis bu baari la cay def ngir man koo am bu ko amee da koy gëm taqoog moom subaak ngoon bu doon génn te tëkku ko sax day jàpp ne affaire bi du baax tey ndax gàllaaj gi mu tëkkul mbokk moomu nag loolu mu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yabalee mu nekk ci biir arab yi ci biiru xeetam di leen woo ci wéetal yàlla daal ñu lépp loo xam ne dafa safaanoog wéetal yàlla gëm-gëm boobu la fekkoon ci ñoom dañ daan takk gàllaaj ñoom ñoo ñee lan lañ daan jublu ca gàllaaj yi ñu daan takk dañ ko daan tuddee tamima tamima mooy lan mooy loo xam ne daal lay mott leen affaire yi xam ne dañ koy takk ngir say mbir mën a mat di ko takk ngir mu mën laa aar waaye di ko takk ngir mu mën laa xëcc lay njariñ kon ñaari cause moo taxoon ñu ko daan wut ñoom dañ ko daan wut ngir di aaru ci musiba yi wàccugul wala ngir mu yëkkati leen musiba yi wàcc yan xeetu gàllaaj lañ daan takk ñoom ñooñu léeg-léeg ay xor daana ci bokk ay béjjën léeg-léeg daana ci bokk ay wëñ ay fas daana ci bokk ay lam ak yu mel noonu yoo xam ne dañ koy takk ngir aar wala yu mel noonu daana ci bokk fop fette gi ñuy fette buñ ci fettee ba mu ràpp xawsu bi mooy li nga xam ne moom ngay xëcc booy fett ñu takkal ko giléem gi yooyu daana ci bokk yooyu yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw jagaasi ko dindi ko wan na pas-pas jullit te sori lii dagg pas-pas boobu ci képp ku dugg ci lislaam wan ne la yii yépp danga ko war a dagg sànni yonent bi salaa sallam ne man taallaqa tamimatan fala atamma allahu la képp koo xam ne takkati na dara ci gàllaaj yii yàlla bu yàlla mottali mbiram lam ci bëggoon yëpp yàlla bu ko yàlla am def daane wa man taallaqa tamimatan faqad ashrak képp koo xam ne takk na dara ci gàllaaj yii bokkaale na bokkaale na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu mas a ñëw ci moom di jaayanteeg moom ku tàllal sa loxoom jaayanteeg yow ba benn waaye ne jéyi loxoom tàllal yonent bi bañ yonent bi bañ gaa yi ne ko ah yow kat jaayante nga ñëpp ba mu dis kii nga bañ mu ne ndax dafa takk gàllaaj waaye ja dagg gàllaaj ga yonent bi door a nangoo jaayanteeg moom kon loolu pas-pas la bu yonent bi doon dindi ci xeet yu wan ni leen ki leen mën a aar ki leen mën a sàmm ki leen mën a xëccal lor jañal lor xëccal leen njariñ kenn dong la muy borom bi tabaraka wa taala nga bañ a aj sa xol bi ci kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala def sabab yi mu la wax pour aaru muy jàng ñaani yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale am na ñaan yoo xam ne moom ngay jàng boo xëyee ak ñaan yoo xam ne moom ngay jàng ba ngoone ku ko mokkulul am na téere bu tudd xisnul muslim même am na sax ci internet bi boo ko bindee rek dana ñëw am na français am na anglais am na arabe am na yëpp ñaan yi ñuy ja yi jëb jullit war di ñaan ci waxtu wane mi ngi ci nga tax koog ñaan yooyu amul leneen lu fi aay ku kiirlu ci yàlla wéetal yàlla daal di def sabab bi muy ñaan amul leneen doo dem ci njabarkat mukk doo dem ci gisaanekat mukk soxla woo leen amoo ci ñoom soxla loolu ku ko def suñu borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moo lay aaral boppam amaa nag boo bàyyee loola dem ci safaan bi muy njabarkat yeeg gisaanekat yeeg gàllaaj yeeg ñoom suñu yàlla bàyyee laak yooyu te yooyu kat kuñ ku ko yàlla bàyyee ñoom ci tiit rek ngay def wa annahu kaana rijaalun min al ins yacuduuna bi rijaalin min al jinn fa zaaduhum rahaqan mu ne am na jinne yee wax foofu de am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy ñëw ci jinne yi di muslu ci ñoom te bépp njabarkat boo mën a dem ci kaw suuf ci ay jinne lay dem di muslu ci ñoom fa zaaduhum rahaqan jinne yi di leen dolli ak tiitaange ak di gën a rëy rëylu ci seen kaw kon mbokkum jullit mi na nga xam ne daa bokk ci pas-pasul islaam bokk ci wiital yàlla bokk ci li nga xam ne moom la yàlla gën a bëgg ci yow mooy nga tàqali kooki gàllaaj daa bokk na ci li gën yàlla gën a bañ ci yow nga xam ne mën naa tax sax ba boo tàllalee di ñaan yàlla bëggul te mën na laa dugal ci bokkaale gu mag koo xam ne day tax sa jëf yëpp yàlla du ci nangu dara mooy ngay takki gàllaaj am na benn xeetu gàllaaj boo xam ne boroom xam-xam yi wóote nañ ci mooy nit téere boo xam ne alquran yi kese lañ ca bind wala boog ay ñaani ñaan yoo xam ne ñaani sunna la masalan ñaan yoo xam ne lu leer la yoo xam ne dara nekk ci lu dul ñaan borom tabaraka wa taala téere bu mel noonu borom xam-xam yi dañ cee wuute ñenn ñi ne day bokk ci li ñuy aaye day bokk ci li ñuy aaye ndax buñ ubbee façon téere yu mel noonu kon nu ñuy xàmmeetee téere yi nga xam ne bokkaale la ak du bokkaale bu ko defee kon day mel ne dañoo ubbi waat buntu bokkaale te sharia lépp loo xam ne dafa nar a indi bokkaale dañ koy tëj benn yoon moo tax jooju wax moo gën a dëgër moo di ne bul ubbil sa bopp benn xeetu téere ci téere yi bul nangoo takk dara fabal sa bopp bàyyi borom tabaraka wa taala di ñaan boo xëyee jàngal qul huwa allahu ahad ñetti yoon qul a'udhu bi rabbil falaq ñetti yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñetti yoon bu ngoonee nga jàngaat ko booy bëgg tëdd jàng ko loolu boo ko dee def dara du la lor incha allah ak yeneen